ku ko xam xam itam euh, ni mu euh, amee xam-xam macha allah ci euh, mbiru États-Unis maîtriser ko lool ñu bëgg kon waxtaan ak moom ci lii ma fi wax monsieur Sène ñu ngi lay nuyu. di am mbégte dalal la ci réew mi. maa ngi lay leen gërëm di leen sant li ngeen ñëw jéem a gëstu. suñu diggante Amérique ah, lu am solo la. Mm-hmm. voilà alors ni ma ko waxee léegi suñu digganteeg Amérique la ñuy waxtaanee kañ la jëflante gi commencé diggante Sénégal ak ah, États-Unis. jëflante bi nag moom mu ngi commencé Euh, tubaab yi jóge Europe ñëw nañ fii di jël suñu maamataar yi di leen yóbbu foofu ci buumu jaam foofu la relation yi commencé ba nga xam ne nit yu ñuul ñu bari jëla nañ leen fii biñ nekkee seen digg doole yóbbu leen ñuy liggéey foofu ci toolu Amérique yi di leen bayal witeen di leen béyal euh, mboq ak yeneen yi xeetu Euh, mbay gis nga foo soo demee fi ñuy wax Louisiane ak seen dëkk bu rëy boobu ñuy wax Nouvelle-Orléans soo fa nee gombo maanaa kànja mun nañ la defal euh, suppu gombo mooy suppu kanja voilà ah te soo ko lekkee dafa mel ni suppu kanja buñ defee fii hmm. xam nañ kaani voilà mais soo fa waxee bukki aussi bukki bukki soo ko fa waxee. ñu xool la parce que nit ñu ñuul ñi xam nañ koy bukki parce que ba ñuy jógee fii léeb yi ñu leen doon léebal seen maam yi dañ ko yóbbu foofu. am na ci benn borom euh, koo xam ne kii xam-xam boobu euh, am na ci lu bare bind na benn livre bu ñuy wax bukki fee gombo te loolu yëpp culture Nouvelle-Orléans ak Louisiane la professeur ba mu ngi tudd professeur Ibrahima Seck fi mu ne mu ngi foofu dafa am benn musée bu ñu defar foofu boo xam ne bi day def euh, day doon musée ci affaire euh, dundinu nit yu ñuul ñi foofu ak esclavage bi moom mooy responsable foofu day jàngale fii département histoire di dem foofu di fa liggéey donc loolu première relation bi am la te relation boobu am na solo parce que xoromu euh, aada ak cosaanu Amérique hmm. nit yu ñuul ñi soo leen ci génnee dootul safati dara cosaan ak aada bu nit ci ñuul yuñ jëlee fii yóbbu foofu foofu dugal ko mu dugg ci cosaanu tubaab yi soo ko roccee dara du fa des xam nga nee nga musique bu ñuy wax blues blues soo ko déggee su fekk même su fekkee mosuloo dégg blues mosuloo xam États-Unis soo déggee blues ak ni ñuy joué guitare bi ku mel ni John Lee Hooker dafa mel ni yow yaa nga déglu xalam bu ñuy xalam Mauritanie walla Mali yaa ngi dégg bi li may wax voilà mu ngoog euh, léegi aussi gis nga jigéenu américaine bu ñuul surtout ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci sud bi Mississippi Louisiane ak yooyu suñ la regejoo wala suñ la ciipatoo mm. da ngay ni ñii fan lañ jógee ci senegal wala Afrique de l'Ouest ah kon nañu garder yooyu. dañ ko garder. am na ci ñoo xam ne ñii sax ay suñuy suñuy diine yu yu yu yàgg yi euh, am na ci loo xam li dañ ko garde donc loolu yëpp relation yoo xam ne yi mu ñu euh, mu ngi def que ñun ñu ak États-Unis am loo xam ne li bokk nañ ko même suñ ko xamul beneen bi mooy deuxième guerre mondiale avant deuxième guerre mondiale xam nga gore biñ nekkee ci colonialiste yi ñaari drapo ñoo fa doon euh, ñoo fa doon ñoo fa nekkoon drapo France drapeau Amérique am na sax ñoo xam ne dañu doon kokkale tuuti français yi ne drapo Amérique boo gën a ngand que drapeau France bi beneen bi mooy guerre mondiale bu mujj 1942 pooru ndakaar bi amoon na solo lool lool lool lool ci xeex bi nga xam ne américains yi ak français yi ñu ngi ko doon xeex allemand yi bi nga xam ne am na ay généraux euh, yu nekkoon ci armée Amérique bi te am ci solo lool yoo xam ne yi jot nañ fi jaar donc pooru Dakar bi am na rôle bu important bu mu jóge bu mu jóge soo soo gëstoo xool ci suma mur bi fale di nga gis benn portele yaa ngi gis Léopold Sédar Senghor mhm. diggante John Fitzgerald Kennedy ak euh, Jacqueline Kennedy Jackie Kennedy mhm. muy lan muy ni Léopold Sédar Senghor ràññee nañ ko lool lool lool lool ci Amérique ak ci université américain bi comme boroom xam-xam ak koo xam ne kii aada ak cosaan daf ko yàgg fulaal aada ak cosaanu Afrique ak aada ak cosaanu Sénégal mu yóbbu ko fu nekk. loolu moo tax festival mondial des arts nègres bi amoon 1966 ñu mel ni Duke Ellington ak euh, chanteur ak euh, euh, musicien ak personnalité yi ñi nga xam ne ràññee nañ ko ci noir américain yi. ñu bari ñëw nañ fi parce que ñoom ñëpp ñoo nga xam ne amoon nañ solo ci 66 dégg nañ seen tour ñu ngi woon fii pendant 3 ou 4 semaines loolu beneen relation la te li ma ci teg mooy depuis ba ñu indépendant bi léegi fépp fu ñu junjee ne président américain mu ngi visiter Afrique li ma ci xam ci loo xam ne lii président bi visité na Afrique te ñëwul Sénégal loolu barewul te li ko taxal mooy lenn soo nii man président États-Unis il faut ma visiter Afrique yan dëkk lay dem sunni dina dem Afrique du Sud ñu ne waaw évidemment normal na Nelson Mandela ak euh, Afrique du Sud aussi dañu am doole économiquement sunni dina dem Nigéria xëy na Nigéria aussi am na doole su ñu nee Ghana waaw Ghana ni ñu fa war a visiter mu ngi mel ni war a visiter fii parce que ba Ghana aussi dafa am ay place yu bari yoo xam ne yi méngoo nañu gore ci affaire esclavage bi en plus anglais lañuy wax te en plus Ghana ak États-Unis dañ yàgg am ay relation beneen dëkk boo xam ne bii mënoon nañu yaakaar ne dinañ fa dem mooy Libéria mais nag Libéria tuuti waayam tax na xëy na mun nañ fa ñàkk dem mais histoire Libéria yépp dafa méngoog dafa lëkkaloog Amérique gisuloo drapeau Libéria bi. Mhm. drapo Amérique la ak benn kër étoile kese. voilà foofu lañ ko jëlee parce que ñi nga xam ne ñoo ñëw fekk si ñi nga xam ne ñoo dëkkoon Libéria te ne nekk seen group ethnique ay américain noir la woon mhm. gisuloo ñu tuddee ko Libéria dans Libéria yaa ngi am liberté. liberté waaw. voilà xëy na duñ dem liberté Libéria mais fala budda ak ay la yéwén. Mhm. mënuñu dem Gànna te ñëwuñu Sénégal. parce que Sénégal il faut ñu ñëw fii gar. un certain nombre de facteurs d' abord dinañu ne mënuñu visiter Afrique ñi nga xam ne ñooy làkk anglais mhm. te visité wuñ Afrique ñi nga xam ne ñooy làkk français ñiy làkk français nag ci Afrique de l'Ouest yaakaar naa ne ce sera très difficile nga mun a expliquer nga mun a justifier ne mhm. maa ngi dem Afrique de l'Ouest ñi nga xam ñooy làkk français te du doon Sénégal xëy na peut-être mun nañ ne Côte d'Ivoire mais même su fekkoon ne Côte d'Ivoire comme koomamam am na solo mais Sénégal lim tekki ci politique ak Sénégal lim tekki ci culture mënuloo ko teg fale ak Sénégal lim tekki ci aada ak cosaan ak istoire ak gore mënuloo mhm. ko ci tekki loolu mooy dara darajay Sénégal ak aussi liñ fa suñu dirigeants yi en particulier Léopold Sédar séngoor jëmbat docteur honoris causa jox nañ ko Senghor ci ci ci raaya boobu jox nañ ko Senghor ci université yu bari donc am na sax Adja Mbana Diop la woon wala xawma kan docteur honoris causa de l'université de Harvard docteur honoris causa de l'université de Howard kooku moo ko doon woyal loolu si Léopold Sédar Senghor foog naa ci festival bi la. Mm-hmm. voilà donc yooyu yëpp yooyu yëpp def na ni Sénégal que président américain teg fi tànk kooku c'est tout fait normal. te euh, gisuma aussi benn ci suñ président yi yoo xam ne yi demuloo Amérique. Senghor dem na fa plusieurs fois Abdou Diouf dem na fa du Diouf xaritu Bush senior la woon Bush junior ñëw aussi ñu am rapport yu baax président Wade aussi lëkkaloog Bush Bush junior ñëwoon na fi visite Barack Obama bi mu ñëwee pratiquement xaritu Macky Sall la te nit ñi pratiquement ñoo bokk ak génération voilà moom ñoo bokk génération ñu waxtaan waxtaan wu am solo mais aussi fi koy Macky Sall di war a tontu ci loo xam ne laa yoon na ko mooy affaire xëy na euh, tànn sa bu la neex ci affaire wu sëy mm-hmm. euh, Macky lim ko tontu mooy euh, xam nga da am seen aada ak seen cosaan ñun tamit ñu am suñu aada ak suñ cosaan te lim ko wax dëgg la parce que étudiants américains yi ñëw fii di ñu seet si ak professeur américain yi ñëw di di leen di ñu seet si mm-hmm. dama leen ay faral di wax ne li ñuy wax PDA public display of affection c'est-à-dire cofeel bi nga am ci góor gi yow jigéen walla cofeel bi nga am ci jigéen bi yow góor nga di ko won wone euh, ci ci ci tali bi ñépp di la gis loolu xamuñu ko malaaj laaj la mbeddu Dakar yi su fekkee ne sénégalaises yi ak sénégalais yëpp la foo ci gis ñaari xale yu bëggante di fóon di fóonante amul bokkul ci wala bokk su amee c'est kenn ki xëy na mu ngi jógee bitim réew. benn français ànd ak benn sénégalaise pousse ko ci loolu ñuy lëkkante loxo wala di fóon mais loolu bokk suñ su aada ak suñ su dax mm-hmm. wala bokk xale yi nga xam ne def nañ ko peut-être xaw nañu génn xeet tuuti. Mm-hmm. donc loolu laa leen wax may leen ñun affaire yi mbëggeel. duñ ko wone ci biti loolu loo xam ne la dañ ko dañ ko nëbb dañ ko nëbb pas parce que dañ ci rus mais dañ ko nëbb parce que loolu loo xam ne lii warul nekk loo xam ne lii dañ koy wone wone mu génn comme ça ñëpp di ko xool donc loolu ñun dañ ci am kersa c'est pas parce que du doon loo xam ni rafetul wala dañ ci rus mais loo xam ne c'est trop personnel euh, kenn du ko wone gis loo sax d'ailleurs euh, film yi nga xam ne ñu ngi koy defee Afrique wala film yi nga xam ne ñu koy defee Inde li ci fonante barewul de. barewul de mu ngoog donc ñun loo man loolu laa ne expliquer. Mhm. ne leen nag tànn sa bu la neex. ku ci mhm. nekk mun nga dem fu la neex ba doo ñëw fii ne ma euh, coming out ne da ngay génn wane ne yow lii nga ñun loolu xamuñu ko. voilà ñi nga xam ne dañuy sëy diggante góor ak jigéen duñ génn ci biti di wax ne ñun lii lañ bëgg loolu kenn du ko wax donc ñoom itamit nañ ñu comprendre mhm. parce que nag nañ leen wax leen coopération lum euh, lum coopération lum neex neex neex. ak coopération su fekkee ne dëkk boo am ne doole lu la ci jox jox jox mais sa fu la fay nag doo ko jaay. Mm. je crois que loolu nag quand même euh, c'est tout à fait normal mm. donc loolu mooy suñu diggante Amérique mm. fi mu jógee ak ba fii. Euh, voilà donc euh, soo buggee ñu gën a. ci relation diplomatique yi. xëy na voilà mm-hmm. euh, relation diplomatique yi mu ngi doon depuis que ñu indépendant depuis que ñu indépendant gisuloo Amérique mm-hmm. su fekkee ñu ngi immatriculé fii seen oto xam nga dañ ciy def. zéro zéro huit am na ci benn kilifa bu mag bu nekkoon ambassade mu tuddoon Stéphanie euh, mu tuddoon Christine Kane kan bi kanu senegal la parce que Sénégal la la la suñu xarit la woon te mën a liggéey te bëgg senegal parce que moom en 2000 dafa ñëw fii ne ma Ousmane gars yi nee nañu yéen jàngal ngeen Afrique lan mooy démocratie mu ne déet gars yi dañ juum yéen Sénégal jàngal ngeen démocratie àddina wërngal këpp parce que àddina si yëpp tiitoon na Sénégal lan moo fiy xew. Mhm. yéen ngeen def seen ful ak seen fayda. Mhm. def alternance ngeen am nouveau président te coow jibul. waaw ñëpp xëy liggéey. waaw waxuma sax affaire u fitil mais coow dafa jibul donc kooku ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu respecté woon la. Mhm. te aussi koo xam ne ku bëggoon Sénégal Euh, ci relation yi nga xam ne am nañ ko digganteeg États-Unis te mu doon relation yoo xam ne yi yàgg na depuis indépendance lañ commencé di yónnee ay ambassadeur euh, ambassadeur États-Unis mais am na ci ambassadeur yoo xam ne sax ràññee nañ leen André bari ku ñu ràññee woon la ci tàngu Senghor doon na fa ambassadeur Ousmane Socé Diop te nga xam ne moo bind ay téere mm. ku ñu ràññee woon la ku am euh, mandarga yóbbu nañ ko fa Cheikh Ibrahima Fall aussi yóbbu nañ ko fa Abdourahmane Dia yóbbu nañ ko fa Fallilu Kan ki nga xam ne dëgg-dëgg ambassadeur buñ ràññee la demoon na fa keneen koo xam ne aussi ràññee nañ ko ci diplomatie Ibra Degen Kan dem na fa suma xarit muy général Mamadou Mansour Seck nga xam ne moo doonoon chef d'état-major général de l'armée sénégalaise doon na fa ambassadeur pendant presque dix ans est-ce que xam nga ne programme bi ñuy wax AGOA Africa Growth Opportunity Act bi nga xam ne dañ ubbi kooku ci taawu Bill Clinton la ñu ne nañu ubbi marché bi produit africain meññeteefu africain boo xam ne bii sell na te du yàq suñ béy su fekkee ne xool nañ ko xoolaat ko mais su fekkee ne soxla nañ ko mun nañ ko indi fii mhm. Sénégal parmi mu ngi bokkoon ci dëkk yi nga bariwuñ nag mhm. mu ngi bokkoon ci dëkk yi nga xam ne tànn nañ leen ne ñoom war nañ ci mun a bokk mais est-ce que xam nga loolu pour Afrique xam nga kan moo ko dox. général Seck moo doon jël ambassadeur u africain yi di leen rëy réunir ñuy dem négocier ak négocier ak euh, responsable américain yi moom itamit def na fa jéego jéego bu rëy rëy rëy euh, bon. Fatou Daniel Diagne moom itamit mu doon euh, jigéen joo xam ne ji ci diplomatie kenn ràññeel nañ ko fa lu lu lu lu am solo. Cheikh Niang bi nga xam ne jàngal naa ko fii université moom itam mu doon xale waaye doon euh, diplomate bu xarañ yóbbu nañ ko fa yóbbaat waat ko fa ki ki ci ki ci ki ci mujjin affaire ki fi mujj mooy waxuma ki nga xam ne nommé nañ ko barki Dembo ah, Ndiaye mais ki nga xam ne aussi ràññee nañ ko fa suma xarit bi te mu doon seen nattangoo mm. mais Babacar Diagne def na fa liggéey bu rëy bi nga xam ne ba fa ba fa ba fa Macky Sall nekkee sénégalais yi réunir yëpp daf leen ko wax ne kii Babacar Diagne li ma liggéeyal fii ci Amérique mm. maa ngi koy gën euh, euh, maa ngi koy maa koy maa koy gërëm di ko sant te nag américains yi aussi respecté ñu ci loolu parce que xam nga am na yeneen ambassadeur yoo xam ne yii mm. duñ leen tudd te du leen wax mais pour temps ci diplomatie bi la ñuy la ñuy la ñuy nekk du ñuy diplomat gaa mm-hmm. mais la ñuy def euh, États-Unis mm-hmm. tax na nit ñi gën a naw gën a admirer gën a respecter Sénégal artist yi ci lañ bokk waaye nag professeur université yi fay dem di jàngale ci lañ bokk saabu du foot boppam madame mais li ma dem ci université américaine jàngal fa pare ne maa ngi pousse ma bagage ne maa ngi ñëw ñu ne ma de toogal ñu jël la nga doon professeur ici mhm. bare na te loolu li ko tax su may dem dama ne mandarga Sénégal lay yóbbu mandarga ah. africain mhm. bugguma mokk ñu fa tuumal parce que soo fa defee lu ñaaw dañu ne ah africain rek la wala ah, sénégalais loolu lay bañ. te loolu daf ñuy topp. waaw voilà mu ngoog donc donc li ngay defar nga rafetal ko. pour mm. sa dëkk mm. pour aussi sa personnalité bopp. mais su ma leen déglu woon kon xëy na loolu ñëw fii di ma interviewer parce que maa ngi nekk foofu di jàngale <laughs> voilà. waaye ñun tamit soxla nañ la alors professeur est-ce que incident diplomatique mus na am diggante Sénégal ak Amérique. i diplomatique incident diplomatique. ah oui na. am na benn benn benn diplomate ambassadeur u États-Unis bu jigéen mm-hmm. suñu xarit la woon mm-hmm. euh, moom nit ku ñuulu Amérique la woon euh, turam a ngi suma bopp bi mais dama ko xaw a fàtte mm-hmm. mais moom bi moom ambassadeur la fi woon euh, ci ak Abdoulaye Wade xawoon nañ jote ñeen ñaar parce que Abdoulaye Wade je crois dafa ne woon Euh, américain ñu ngi dugg ci affaire yoo xam ne yi Sénégal ko moom. waaw waaw ingérence daal. mais nag euh, ku ci nekk euh, wax nga sa morom tontu ko loolu de moom incident boo bu amoon la te je crois pas que ambassadeur américain bi moo moo moo moo moo moo ki yoon moo moo amoon tort je crois que quand même li mu doon def loo xam li mën nañ ko def sans problème. Hmm. mais incidence bi incidence bi wala incident diplomatique bi demul fu sore parce que taxul ñu ni. états ñu ngi rappeler seen ambassadeur wala ñu ne Ablaye Wade nee na États-Unis nañ jël seen ambassadeur yóbbu ko boobu yegguñ foofu. Mm-hmm. dafa convoqué waaw waaw ku ci nekk daal wax nga sa côté mais après daal affaire yi euh, kii nañ ko mocc nañ ko ba nga xam ne mm-hmm. ah, ci ci jàmm la la la mujjee mm-hmm. am na aussi ay situation yoo xam ne du na rek di diggante gouvernement di am na temps bi temps bi euh, kii 911 mooy bu ñu euh, daanelee ñaari tour yooyu fii def nañ fi benn conférence fii ci wark alors je me rappelle ndeysaan suma xarit euh, Sidi Lamine Niass ñëwoon na ci conférence bi ak ki nga xam ne aussi moo nekkoon chargé des affaires culturelles bu ambassade États-Unis ñëwoon na fi mais waxtaan wi ñagasoon na diggante ñoom ñaar parce que xam nga Sidi Lamine monde arabe bon kële bon voilà mm-hmm. mais lépp dellu ci yoon parce que am na moment boo xam dama obligé jël micro bi ne euh, Sidi suma xarit ak ndaw si ma ne ko yow ma ne leen yéen ñaar man dootuma leen joxati parole mm. voilà parce que wax yi mu ngi commencé ñegas te waruñu yegg foofu mm. euh, bon alors finalement euh, affaire bi ça s'est très bien terminé mm. et puis il y a pas eu de de de problème majeur beneen ambassadeur aussi ñëwoon na fii bi muy tàggoo ne nday dem ne daf fi bugg a def conférence moom mu ngi fi woon ci taawu Barack Obama mu ne Ousmane de affaire euh, euh, sëy tànn sa bu la neex la dinaa ko wax ma ne ko ah mu ne indi problème ma ne ko non sénégalais yi ñoom xam nga sénégalais yi nag dañ nangu euh, dañ nangul nangul nit yelleefam même suñ d'accordul ak yow dinañ la déglu quand ma ne ko yaakaaru mu ne mu indi problème mais wax na ko ne Barack Obama nee na ma il faut dëgg-dëgg Sénégal ngi nga xam ne moom affaire droit de l'homme ak démocratie daf ci xarañte te sore ci lool il faut que ñu nangu ñi nga xam ne xëy na euh, seen euh, tànneef ci affaire u sëy bokkul ak suñu bos ñu nangu leen mais nit ci déglu nañ ko tontu nañ ko ni mu ko waxee ni mu rafetee na gars yi jëlee parole tontu ko rafet la preuve affaire bi ci réception la mujj ñuy xaaxaataay di ree donc euh, xëy na am na foo xam ne fii euh, bon du ñu kàddu yi war nañ mun a wuute mais nag Sénégal moom def diplomatie daf ci xereñ Amérique aussi mooy dëkk bi nga xam ne euh, nangu nañ fa lu bëree bëri loo xam ne lii nekkul ci ñoom wala bokkul ci ñoom ñu def ko fa barke Dembo Ndiaye laa doon woon sumay gars yi fii benn vidéo xam nga vidéo ba lan moo ci nekk hmm. benn commissaire de police boo xam ne bi dañ ko war a waatloo pour ko mu jël commissariat de police bi hmm. est-ce que xam nga ci ban ci ban téere lañ ko lañ ko waat waatal alxuraan dinaa la ko woon tout à mhm. euh, pare ba mu waatee ba pare xam nga lan lañ ci mucc mhm. ay ay ay ay saaru alxuraan am ku nekk foofu benn muqaddam récité ko duñ ne duñ ne Amérique rek chrétienne lañ. kon alxu déedéet dañ ko jox alxuraan mu waat. biñ paree aussi am na ay saar yoo xam ne kii récité nañ ko pour barkeel. Euh, kii liñ waaw liñ ko liñ ko élire. Euh, commissaire de police suñ paree daal la ko déglu loo mm-hmm. voilà. donc loolu la daal. am na solo léegi bu ñu jógee ci relation yooyu culturel ak diplomatique léegi relation économique diggante ñaari réew yi aussi koom-koom bu am solo. dox waaw waaw mais relation culturelle bi. relation culturelle mais aussi relation universitaire. ok ma ne euh, cadre sénégalais yu bare. cadre sénégalais yu bare ambassade États-Unis jox na leen bourse pour que ñu dem nemmeeku naka lay américains yi di liggéeyee. wala boog ñu nemmeeku gën a renforce seen euh, compétence en tant que gëstukat chercheur wala boog en tant que jàngalekat programme Fulbright man mii dem naa États-Unis def fa neuf mois yoo xam ne ni dama doon gëstu loolu moo ma permettre am na ay bindkat américains yu bari su ma leen dugalee université di leen jàngal programme boobu moo tax am na beneen programme boo xam ne bii aussi mooy IVLP international visitors leadership programme nga xam ne ay gouverneur yi ay directeurs de cabinet yi hauts fonctionnaires yi wala professeurs yi wala directeurs généraux yi dañ leen koy jox nga def fa ñetti semaine ñu dugal la ñu tous les deux jours ñu dugal la ci avion nga dem benn état di ràññee sa secteur su fekkee ne yaa ngi nekk ci Eaux et ñu yóbbu la ci parcs nationaux yi ñu yóbbu la ci ñu yoree affaire ndox mi foofu ak Eaux et Forêts cetera yooyu moom ak ak yeneen am na yeneen bourse boo xam ne bii euh, euh, am nañ solo te sénégalais yi ak africains yi profité dañ ci. loolu il faut que ñu wax ko coopération universitaire bi aussi am na solo université yu bëri. ñu ngi envoyé seen ndongo fii di jël suñ ndongo di leen yóbbu foofu buñ demee ci koom-koom bi xëy na Euh, am na aussi euh, relation militaire très souvent nga ah, gis ñu def militaire si laa doon ñëw après voilà waaw da nga ci ñëw mm-hmm. économie bi nag lañ doon ñaan ne xëy na mënoon na gën a yokku je crois que li tax gën la yokku mooy c'est que américain yu bare xamuñu bu baax Afrique xamuñu bu baax Afrique parce que les premières fois ma dem fa foo dëkk ma ne Sénégal ñu ne way oh, xam naa ma ne leen Sénégal fan la féetee ñu ne ma ah waaw nekkul wetu Afrique du Sud ma nekkoon xamoo dara <laughs> voilà ñi nekk ci université yi di gëstu ñoom xam nañ mais ñi ci des xamuñu et très souvent aussi ni ñuy gisee Afrique est-ce que Afrique wóor na nga xam nga seen seen nattango yi mm-hmm. euh, journalistes yi dañ ne train boo xam ne bii day day day day départ ci heure yegg ci heure. waaw train train boobu jarul ñu koy wax. Mhm. mais train boo xam ne bii day tardé di accident. di def ay ay ay ay affaires yu. doy waar moom la ñëpp di bàyyi xel. <laughs> mu goog donc donc donc donc ce qui fait que euh, euh, euh, li li ñuy gën a retenir ci Afrique te loolu il faut ñu liggéey ci mooy jël Afrique Afrique mooy réewu nit ñu ñuul ñi Afrique développé wuñu Afrique est-ce que est-ce que nangam nangam Afrique terroriste yi. Afrique kii euh, euh, euh, affaire Rwanda guerre tribale yi Afrique ay président yoo xam ne yii ay ay tyran lañu ay despote lañu amu fa démocratie xëy na yu mel noonu Afrique corruption xëy na yu mel noonu ñi nga xam ne jéemuñu gëstu loolu la ñuy dégg ci rajo yi di ko lire ci journaux yi gëm ko alors loolu nag soo ko gëmee parce que investissement moom mhm. première condition pour que nga investir mooy est-ce que wóor na loolu mooy premier bi. Ah, surtout stabilité bi voilà est-ce que dëkk bi stable na. est-ce que am na démocratie mais est-ce que aussi ñi nga xam ne ñoo jiite euh, dëkk bi est-ce que wóor nañu. donc yooyu su fekkee ne am nga ci xel ñaar. xëy na doo xalaat investissement mais je crois que loolu tôt ou tard dina changer parce que ñëpp a ngi wax ne euh, ëllëgu àddina si mu ngi fii ci Afrique su fekkee nag ëllëgu àddina mu ngi fii ci Afrique te Sinoa yaa ngi ñëw. turc yaa ngi ñëw ak ñeneen ni ñeneen même même russe yi dañ bëgg a jëw mm-hmm. même Angleterre nee nañu ñoom bëgg nañu renforcer seen relation xoolal euh, euh, Boris Johnson euh, bi mu dajeek Macky Sall donc loolu yëpp je crois que Amérique xëy na dina tax ñu xesen seen nopp ne déet nañ nañ def ndànk kat ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi lu ñu Afrique mais suñ mujjee suñ suñ suñ dofee xëy na dëkk yeneen waaw yeneen dëkk yi dinañ fa dinañu fa raw te war nañ fa mun a dem deflante ak ñoom mm. je crois que visite Pompeo loolu am na ci solo lu ba lu lu bare mm. lu tax parce que heure bi muy ñëw dafa bett ñëpp man mii sax nga xam ne jege naa ambassade mm. ba ma benn journaliste interpellé ne ma jox ñu benn interview parce que day ñëw j' dama obligé jël suma téléphone contacter waa ambassade ne leen est-ce que lii dëgg la day ñëw. ñu confirmer ma ko. donc donc ñu bari xamuñ ko woon. pour yow si ban contexte la ñëwee. waaw mais contexte bi cest à di que ñëw na ñëw boo xam ne bi xaw nañu bett xëy na nag ñoom dañ ko doon préparer mais waxuñu ko kenn xam nga affaire terroriste ah, aussi il faut nga ah. jël say matukaay. Euh, mais ñëw na signé nañu ay këyit mais la fekk mu ñëw mu ngi tombe foo xam ne fii on se disait que xëy na Trump. dina terminer mandaam te moom ñëw fi ak ki nga xam ne mooy dox affaire Amérique ci ci àddina si muy secrétaire d'état ñëw fi xam nga contexte boobu la. Hmm. donc contexte boo xam ne bii aussi chinois yi ñu ngi fiy gën a investir di gën a investir donc ñu ñëw am na ay kayit yu ñu xaatim yoo xam ne yii Sénégal am na ay financement yoo xam dina ko am mais dem na surtout Éthiopie xam nga Éthiopie dafa yàgga doon allié États-Unis mais dafa mel ne Éthiopie fi mu ne koy tabax. Chinois yi ñoo ko fa yóbbu est-ce que xam nga ne Éthiopie seen aéroport moo doon ci ñi gën a mag ci Afrique aéroport Johannesburg xam naa ko rëy na lool mais aéroport Addis Abeba rëy na lool te ñu ngi ko yokk ñooñu ñen ñoo ko defar Chinois yi ñoo leen jox xaalis donc ñi nga xam ne yàgg nañu def lekk Amérique su fekkee ne Chinois yi xëy na mu nañ leen nangu kon à partir de ce ñoom ñu ñëw ne dee. gaa ñi yàgg nañ waaw yàgg nañ jëflante nañ ca dellu hmm. te effectivement fu ñu waxee très souvent dañuy xaw a ŋàññi chinois yi moytu leen ñi nga xam ne dañuy ñëw fii di fi investir te amuñu démocratie hmm. moytu leen ñi nga xam ne dañu ñëw fi pare te euh, jox leen xaalis te ñoom amuñu respecté wuñu leen droit de l'homme moytu leen ñooñu tegaat leen mboomu jaamu colonisation parce que colonisation mun na doon bu France def mhm. waaye su fekkee ne suma alal bi nekk ci dëkk bi yëpp yow yaa ko ngànk kan dans ces conditions mhm. colonisation économique la mhm. loolu yëpp ñu ñuy artu ne na ngeen ko mujj mais pour le man li ma gis mooy chinois yi ñoom ñëw nañu ak seen saaku xaalis ne gouvernement yi doxal leen xaalis baa ngi ñu doxal mais maintenant gouvernement wu africain yi ñooy ngi jël rek seen matukaay pour que loo indi ci xaalis xaalis bu leen dugal ci mbuus euh, bul bul jël dëkk yi dëkk yi dugal leen ci mbuus ba pare moom leen kooku moom ne buñ buñ ko nangu. d'accord euh, Pompeo tamit yaakaar nga ne visitam bi euh, am na rapport ak pétrole ak gaz bi fi feeñ. oui pétrole ak gaz bi wax nañu ko mais je crois que ñi nga xam ne ñoo ngi war a intervenir ci pétrole bi ak gaz yi ràññee nañ leen déjà mais nag président Macky Sall dafa moom buntu bi daf ko ubbi. képp koo xam ne kii da nga ñëw waaw euh, képp képp koo xam ne kii mun nga ñëw te sooy ñëw dañu indi loo xam ne suñ njëriñ la mais mun nga ñëw ba barkelu ci pétrole bi xëy na aussi loolu am na mais que mu ñëw rek ngir pétrole bi hmm. yaakaaruma ko parce que ci waxtaan bi mu waxtaan laaj nañ ko ne ko ah yéen affaire sécurité ak affaire euh, euh, xeex ak terroriste da ngeen ciy wàññi sa loxo mu ne déet affaire boobu il faut ñu continuer di ci liggéey. ndax nag euh, dañ ciy liggéey pour renforcer ko mais la dañ ciy liggéey mais ñoom en même temps seen présence ñu wàññi ko xamuñu ko mais en tout cas nee nañ nañ si dugal seen loxo même su fekkee ne G5 c'est-à-dire dëkk yi nga xam ne ñoo war a saytu terrorisme muy Tchad ak Niger ak yooyu même ñoom américains yi ñoo xaw a euh, nasaxal. financement bi nga xam ne ONU waroon na ko joxe. n'empêche li Pompeo wax mooy dinañ continuer euh, di liggéey ak suñu armée yi. pour euh, affaire terrorisme bu ñu xam fan lañ jaar ba bu ñu bu ñu bu ñu boom bu ñu boom donc euh, pétrole bi xëy na mais pétrole bi du lépp. pétrole bi du lépp je crois que il fallait que Pompeo ñëw ci pour pour wane ne Amérique mu ngi intéressé wu toujours. ci ci ci Sénégal ak Afrique. il fa que mu ñëw pour wane ne xëy na Sinoa yeeg ñeneen jox nañ leen lii mais ñun aussi xaatim nañ lii ak yéen euh, le millénium MCC. mais 500 mili 500 milliards de de de de trucs pour que suñu électricité bi gën a dëgër mais kooku bon voilà donc euh, yooyu yëpp ak li ñu def ci santé bi ak yeneen secteur mm-hmm. donc je crois que yooyu amoon na solo. pétrole bi su ci nekkee xëy na nekk na ci mais c'est pas la seule raison loolu nag euh, ma wax ko sénégalais yi aussi bu ñu yaakaar ne way mais yi dañ ñëw dañ bëgg a nangu suñu pétrole bi loolu nag quand même loolu waxu caaxaan la euh, ñun naka lañ mën a sàgganee ba nit ñi nangu suñu pétrole bi nañ ne kay pétrole biñ am nañ ko gérer ba nga xam ne yu ñaaw ñaawteef yi nga xam ne gé jot na génn ci euh, dëkku africain yi am pétrole loolu ñu éviter ko voilà pétrole bi suñu alal la mënuñu ñàkk fula ñàkk fayda jox ko ñeneen ñu jëriñoo ci ñun duñ ci gis dara kooku moom Sénégal du ko def tey du ko def ëllëg ginnaaw investissement yi Amérique euh, ne nañu lu ëpp ci li muy dugal euh, ci Afrique bokk na ci senegal ay don la euh, lan moo waral Amérique yéwén noonu envers dëkk yi mel ni Sénégal gis nga lu dem ci diplomatie mun nga yéwén mais yéwén loo yéwén loo yéwen dafa am leen loo ci seet ma ma laaj la su fekkoon ne jël nga sénégalais yépp nga ne leen war na am dëkk bu ñu ràññee bu am solo ci àddina si bu ñu war a ñëw gane si soo ko laajoon sénégalais yi wala waa waa ndakaaru ban dëkk lañ lay wax yow suñ la ko laajoon ne dëkk bi nga xam ne bëgg nga mu ñëw mu ñëw fekk si la gën la jege ba ngeen doon xarit ban dëkk ngay joxe ah, doo joxe France doo joxe Allemagne doo joxe Angleterre su fekkee ne jël nga fukki nit soo leen ko laajee boo moytul huit yi wala neuf yi dañ lay ne Amérique donc cofeel boobu ñu am ci ñoom xëy na le fait que Amérique am ñu nit ñu ñuul ñu fa nekk mais seen style ak seen ni ñuy demeeree ah, voilà mu ngoog loolu yëpp bokk na ci mm. du ne rek parce que dañu am doole sur le plan dañ fay gis sa bopp ci pàcc yu bari mu ngoog mu ngoog donc don yooyu jëf jëflante yooyu day tax sa digganteeg dëkk ba ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi mu ra tax rafet ba nga xam ne foo ne Amérique. mais bañ ne Amérique boom nañ ko ñëpp dañ mere ñi boomoon Amérique. te pourtant ñi leen boom normalement ñun ñoo ak ñoom ñoo bokk diine. mais bañ ko boomee ñun ñëpp dañ jóg ànd ak Amérique. Mm-hmm. lu lu tax parce que fi ñu teg Amérique ci suñ xol la. Mm-hmm. donc loolu aussi suuxat euh, amitié bi xaritoo bi diggante Sénégal ak. ak États-Unis donc diplomatie moom ay même su fekkoon ay milliards yoo joxe la dafa am leen loger ut neex na nag ñu souhaité ñu dimbali ñu ça c'est tout à fait normal mais USAID euh, su existé c'est que am na aussi yo euh, yoo relation yoo xam ne yi mu ngi koy sàmm pour que Amérique continue doon suñu xarit voilà ci wàllu recherche bala ñuy dem ci beneen pàcc aussi Amérique mu ngi ciy investir lu bëri ndax wark bi sax ci cadre boobu la. waaw ñun nag nañ ko wax euh, bon suñu budget am na ci loo xam ne lii quand euh, Amérique lay jóge parce que nag wark du du du organisation boo xam ne bi africaine rek la ñun bi ñuy bi ñuy tabax bi ñuy euh, samp wark dafa doon ay gëstukat ay professeur université yoo xam ne ñoo nekk fii Sénégal ak Afrique de l'Ouest ñu lëkkaloog ñoo xam ne ñu ngi ci université américaine di jàngale mbirum Afrique ñoom ñoo lëkkaloo euh, euh, euh, samp samp kii bi association bi ñuy wax association de recherche west africaine West African Research Association association boobu nag loxoom bi nga xam ne mooy liggéey mooy WARC West Africa Research Center centre de recherche ouest africain euh, naam euh, am na ci lu bari loo xam suñ budget ñu ñoo koy liggéey suñ bopp mais am na ci pàcc boo xam ne bi aussi ci euh, ci ci ci ay yenn institution américaine lay lay lay jóge parce que mbir mi ñu ñoo ko bokk ba pare am na na leen njëriñ amal nañu njëriñ avant nga ñëw am na ay chercheurs yoo xam ne ñu ngi toog fii may wax ak ñoom di waxtaan ak ñoom fi ñu bëgg a gëstu mais ñooñu Amérique lañ jóge donc am nañ ci ñoom intérêt ñun tamit am nañ ci intérêt mm. parce que am na ay bourses yoo xam ne ak ay activités yoo xam ne euh, euh, euh, chercheurs yi ak étudiants sénégale yi bés boo fi ñëwee alterné bi ajjuma suñu bibliothèque bi mu ngi fees ak ay étudiants étudiants yooyu université Cheikh Anta ak université sénégalaise lañ jóge mm. am na ñoo xam ne aussi ñu ngi jóge mm-hmm. euh, sécurité yaa ngi koy junj sànq Amérique aussi di ci jëflanteeg Sénégal yu lu bari. ah seetal armée bi. Mm. Ah, je crois que jox nañ leen gendarmerie bi en particulier keroog. Mm. mais euh, su ma naamee su suma xarit bi ambassadeur euh, États-Unis nga xam ne moom moo fi génnee ne. su lay nuyu bonjour good morning euh, nanga def euh, naafio euh, euh, voilà moom ah tulli naa boobu tulli naa ba soo soo ko seetloo ba seetlu mm. fépp foo xam ne fii am na ndajeek sénégalais yi dinañ wax fulla ak fayda mais il faut mu reetaan lool mm. voilà loolu mooy esprit je crois coopération bi moom particulièrement dafa fës lool ci ci culture sénégalaise on se rappelle euh, feetu Pâques bi mu defaree ay lax dugg ah, di ko séddale dëkkandoo bi moom moom day xoolal mm. kuy kuy jaay caaf mu ñëw jël bagam toog ba pare nga jaay ko caaf mu toog foofu di waxtaan ak yow woowee <laughs> ku simple la ah. mais nag simplicité boobu ci administration américaine dañ ko waroon a ràññee ça que fois dama doon wax ne man su fekkoon ne man maa yore Sénégal dinaa def en sorte que ñi nga xam ne ñoo ŋànk gouvernement bi. ak administration bi que ñu defal leen stage ci naka ngay naka ngay gérer. xam nga ubbeeku yaatu. fépp foo xam ne fii euh, citoyen am na problème nga jëf ko sa problème pour régler ko le plus rapidement possible donc euh, euh, mais li nga waxoon ci affaire wu affaire wu militaire gendarme yi mais jox nañ leen ay équipement yoo xam ne am na solo Euh, barke de boo Ndiaye la ñu woon image yoo xam ne yi ñu ngi woon foofu ci Thiès ci militaires yi nekk foofu di entraîné wu donc euh, je crois que euh, sur le plan sécurité et puis ay ñëpp ay ay ay ay officiers supérieurs yu bari yu nekk ci armée bi mais dem nañ West Point West Point mooy école bi gën a ci ñi gën a màgg ci affaire militaire États-Unis am na ci ñu ba bari ñoo xam ne ñu formé nañ leen foofu je crois que coopération militaire bi yàgg na coopération militaire bi sax c'est avant affaire terrorisme waaw sénégalais yi di dem foofu di fa jàngale ci école militaire yi mais di fa entraîner mais ñoom tamit ñuy ñëw fii di entraîner xam nga pratiquement man keroog laa dem benn place Sénégal foo xam ne fii xalaatuma leen woon. Mhm. mais dama toog rek gis leen ak seen tenue yi dugg ci àll bi ak seen ay bateau ma ne ah, ñii dañu ñëw fii pour entraîner wu waxtaan naa lu bari ak ñoom mais nag. joxuñu ma ay firnde parce que xam nga affaire wu mm-hmm. militaire ah, ay affaire u kii waaw mu ngoog wala wala wala wala secret défense mm-hmm. mais gis naa leen ñu dugg ci géej gi dem fu sore xam naa préparé na ëllëg ki si biir su fekkee Sénégal soxla nañu. Mhm. nii la ak nii ak nii lañ war a def nañ ràññee euh, place bi. pour que ëllëg ki ci biir suñu Sénégal soxla ñu mun a def travail bu efficace. donc sécurité bi ñu ngi jaan sax ñu yokk ko parce que ñoom dañuy xereñ lool lool lool ci affaire sécurité. Mhm. donc ñun tamit xam nga tànk yi ñuy jëm nga xam ne ñu ngi dem pétrole bi. Mhm. lépp loo xam li def nañ ko ci installation ak infrastructure il faut ñu garder ko. parce que suñu noon mun na ñëw tiire bal ba pare yàqal ñu infrastructure mm-hmm. donc waroon nañ mun a dem seen xereñ ñoom ci côté boobu mm-hmm. ñun ñu jàng ci dara pour que ëllëg si biir aussi ñu aar suñu bopp mm-hmm. parce que plus ngay am plus ngay am noon waa risque yi di gën a mag waaw bëggoon d' accord léegi ñu ñëw tey ci peuple américain. waaw euh, ñi nga xam ne xëy na demuñu Amérique tey bëgg nañu xam un nan la ñuy dundee nan la ñuy xalaatee nan la ñuy jëfee ak surtout nan la ñuy gisee Sénégal. Euh, pour euh, non pour ñi xam Sénégal ak ñi mos ñëw Sénégal ay xaritu Sénégal lañ ki ci mujj barke Dembo Njaay lay dem xam nga lañ la ma wax Ousmane ñibbi. gis nga photo bi euh, ana moo ci sax je crois que génne naa ko mais dinaa su ma ko génnee dinaa la ko woon photo photo photo bi bi ma la bëggoon woon a yëgalik ñii xam nga ñi Floride lañ jógee xam nga maa ngi toog ak ñoom fii xam nga fan lañ nekk si fii mm. ci làmb ji ah mooy ba ñuy def Yékini roi des arènes d'accord suñu suñu aada ak suñu cosaan dañ ko bëgg lool gis nga benn bés. ñi ay nit ñu weex lañ. ay way Floride lañ jógee. Mm-hmm. gis nga am na temps centre bu mel ni euh, Wark ñu ngi ci am ñaar fukk ak ñeent wala juróom Wark nag moom rek moo nekk Afrique euh, Afrique bi bi euh, au sud du Sahara waxuma Afrique naar yi de mais soo bàyyee Afrique naar yi nga jëlee fi ba Afrique du Sud Wark mooy benn dong bu fi nekk mais am na ñaar fukk ak juróom ci àddina si. ba ñu waree def tous les deux ans dañu war a def conférence directeur yëpp daje ba ma jëlee place bi ñu ne ma ñun de dañ bugg a def ko euh, conférence su directeur may leen ñëw leen Sénégal ba ñëwee Sénégal wala laa def ñu liggéey bi ñu liggéey ba pare mu yóbbu leen stade Demba Diop o Baabu Ngom xam nga Baabu Ngom tëggkatu séeréer boobu ak Mayendeb ak mm-hmm. ma jox leen centre bu nekk ma joxe sa turu directeur ak dëkk bi nga nekk. Hmm. ñu way leen. wax ak Babou Ngom xam nga Babou Ngom suy xam nga. Hmm. orchestre waaw suy def ay gestes yooyu. mu def ko ñu tëggal leen tëggal leen tëgg yoo xam ne mosuñu ko gis. maye ndeb woyal leen woy yoo xam mosuñu ko dégg. yaa ngi dégg li may wax. Hmm. directeur bi nga xam ne mooy suñu patron. Euh, bu nekkoon état kii Marie Hélène doonoon suma yaay. ba ma ba ma ne ko waaw affaire bi nag mu ne oh I like nees mu ne moom daal <laughs> nees la faral xaw ma ndax keroog nees moo gañee wala déet waaye daal moom daal daf ma ne oh I like nees mm. lu ñu def nag mu ne est nees booy gagné est nees xamatuma ndax mu nees boo gagné gis nga bi ñu jógee ci loolu ma yóbbu leen falee fi ma dëkk man diggante Sokone ak Toubacouta ñu añee Sokone dem Toubacouta euh, suñu aada ak cosaan ma woon leen ko ci ak affaire développement mm-hmm. ba ñuy reer ki nga xam ne mooy suñ patron ñun ñëpp di nekk Washington. dafa jóg yeneen directeurs yi mooy leen gis ngeen leen max leen lenn Ousmane Sène mi mi nekk Sénégal gañe na leen te dootu leen ko jot. <laughs> xam nga lu waaw mu ne mu après année bi ci tegu dañu waroon dem Mongolie. Mm. xam nga Mongolie fi nekk. waaw Mongolie lañu waroon def pour def conférence su directeur yi. Mm-hmm. mu ne Mongolie mu ne Mongolie yéen su ngeen ma wonul Gengis Khan xam nga Gengis Khan moo defar mm. mongo mu ne su ngeen ma wonul Gengis Khan muy dawal fasam woowu ak di naan deretu xam leen ne Sénégal gañe na leen ba faw yooyu relation lañ am ak ay lañ am ak États-Unis gis nga ñaar yi ma woon leen fii suñ bureau dimbali na ñaar ñett wala ñeenti sénégalais yi xale yóbbu leen États-Unis fayal leen ñu jàng ba ñu ñoo yore seen famille fii bi ma yoree département d'anglais mënu ma la limal étudiants sénégalais yoo xam ne yii université américain permettre na ma ñu yóbbu leen foofu dem fa sëy fa. am fa seen liggéey di toppatoo seen famille loolu relation buñ am ak euh, États-Unis la te loolu li ko waral c'est que américain su la gisee ngay góor góorlu te amuloo doole mun na la dimbale xale yooyu bi ma nekkee chef département anglais yu ma fa yóbbu woon yëpp af ah, dafa am ay faméricain ñu ñu famille yoo xam ne dañ leen booleel daal ndeyal leen mais suñ gisee ne sénégalais bi ndeysaan bu gën a jàng mais amul mm-hmm. dañuy dem ci université yi bind leen di leen fayal te nag année universitaire nga def ko ci université américain ah, ah. soo fayul lu dem ci fukki million dina ma jaaxal ci suñu xaalis ça c'est le minimum mais am na américain yoo xam ne xam naa ko jël nañ ay élèves Sénégal étudiants sénégalais fayal leen bañ am licence wala bañ am maîtrise loolu nag ci seen jikko la leneen li ma ràññee ci ñoom te wax naa ko démb ci benn euh, ndaje gis nga étudiant américain yi su ñëwee fii xalaat ci koo xam ne kii da nga ñëw ci dugg ci biir war ki yaa ngi lekk banaan gis nga xollitu banaan yi daf koy téye ci loxo bi ba taam bu gisee poubelle su ko gisul dina laaj ku nekk professeur Sène euh, euh, où sont où sont les poubelles kooku étudiant américain laaj dama ko mm-hmm. dimension civique conscience citoyenne développé nañ ci lool ci jom du wax la ne man fii ah, euh, yàgg naa di dem États-Unis dafa jàngale ci université yi mm-hmm. ay étudiants dañuy toog rek benn bés ne seen euh, professeurs yi indi leen seen oto yi ngeen jox ñu caabi ji mm-hmm. xam nga pour lan mm. pour que ñu delloo njukkal seen professeurs yi raxasal leen seen oto ba mu set wecc jox leen caabi ji si lu lay laal laaj dërëm ah gis nga étudiants yooyu l'expression adopt a highway dem naa ci benn université boo xam ne bi bi su jotee dafa am gàngooru ay étudiants yoo xam ne dañuy jël seen seen seen poubelle ak seen rato dem ci autoroute bi lépp lu ñu fa bàyyi ci salte ñu génne ko te laaj laajuñ ci dërëm. fekk kenn santu leen ko. te kenn sant ñoom ñoo ko décidé. c'est-à-dire que décider def lu baax pour askan wi loolu dafa am solo. Mm. parce que xam nga leen lañ gëm. lan lañ gëm ñoom. li ñuy wax give back delloo njukkal cest xalaat bi mooy ba ma demee école primaire. su ma bàyyi fayul fifteen. ba ma demee lycée su ma bàyyi lim fay barewul université jàng naa fa su ma bàyyi fayul lu sakku maa ngi ni nag doon boroom alal naa delloo njukkal. loolu ci yar gi la wala. Eh, ça de loin ci yar gi la ci yar gi la gis nga am na ay université yoo xam ni xam nga loolu la ñuy def euh, chaque année ñu ngi identifier seen seen étudiants yi nga xam ne réussir nañ am nañ ay entreprise am nañ doole ñu bind leen mais loolu sax jaru ko dafa am lu ñuy wax réunion à un moment. Euh, étudiants yépp ñi nga xam ni génn nañ ba nga xam ne dugg nañ ci ay entreprise bi am mm. doole dañuy dellusi ci université bi xam nga suñ fa defee deux jours trois jours ñu teral leen. Mhm. ku ci nekk balaa ngay dem di nga di fa bàyyi sec. sec bi nag ay millions la ci dollar mooy mooy li ñuy wax alumni yi mooy ñi nga xam ne jàngee nañ fii. Mhm. tekki nañ. gis nga tur yi tur yu rëy yi ngay dégg yépp Amérique ci ay entrepreneur ak ay businessmen te nga xam ne am nañ olo mhm. alal relation yooyu lañ am sax université yi nga xam ne ñoo leen formé. c'est-à-dire que delloo njukkal dafa bokk ci ñoom. delloo njukkal. ils sont reconnaissants voilà voilà give back delloo la askan wi leen la jox. parce que nañ waxante dëgg aussi dëkk bi su fekkoon nit ñi duñ fay lempo. Mm. kon fan lay dem. waaw man lempo bi may fay dama koy fay pour suma doom yépp wala dama koy def pour askan wi donc lempo boobu suñ ko jëlee tabax ci école yow nga wax ne école bii moom a formé ëllëg ak si biir su ma ko amee dinaa delloo si njukkal. Mm-hmm. voilà te. respecter sa morom li ñuy gis fii nga xam ne dangay saltel ba saltel këru jàmbur kooku kenn xalaatu ko bés bu nekk may jooy ne su ma xale yi nga xam ne ñoo nekk fii di toppatoo war ko ba mu set waaye da ngay gis koo xam ne kii da ngay jël sa café ñëw fii naan koy pare sànni ko fi nga xam ne kii nañ ko gis nga fleur yi sax gars yi dañuy ñëw euh, euh, tux seen cigarette sànni ko kooku moom doo gis amee xalaatoo américain def ko loolu nag ñun ñoo war a yedd yar suñ bopp gën a bëgg suñ dëkk parce que wax ji nag mu ngi fi. Mm. Sénégal moom a ñor Sénégal moom a ñor mm-hmm. mais defalal Sénégal loo xam ne li wane na Sénégal moo la ñor. Mm-hmm. voilà donc yooyu lu yooyu war a jàngee ci ñoom la parce que nag sens civique ak conscience citoyenne développé wul ci ñun. et conscience civique ñoom dañ ko sax théoriser ñoom ñoo bokk ci ñi ko gën a njëkk a jàngal xale bi booy demee jardin d'enfant lañ lay commencer def citoyen yenn yi nga xam ne waruloo ko def parce que soo ko defee xëy na moo la arrangé mais arrangé wul keneen ki. Mhm. dañ la ciy tàggat bi nga xam ne danga koy gaaw a ràññee. ba pare doo ko doo ko def soo ko defee sax ruus. comme tey sànni lekk sànni. ci mbedd mu ngoog mu ngoog mu ngoog ah, ñu ñu ñu fonk seen réew la. Mm. bon euh, xëy na aussi li nga xam ne parce que loo wax ni rek euh, nit ki lépp a baax. li nga xam ne euh, xëy na xaw na manqué ci ñoom c'est li ñu xam ci li des ci àddina bi barewul c'est nag aussi seen dëkk dafa rëy ah. seen dëkk dafa rëy cest a dire que mm-hmm. biir Amérique mm-hmm. mun nga fa fekk problème yi nga xam ne mun nga fa fekk ci bitim réew mm-hmm. biir Amérique lépp loo soxla ye mu nga fa mais mais euh, bon seen xam-xam surtout ñi nga xam ne seen jàng sorewul seen xam-xam si bitim réew barewul waaw loolu moom xam naa waroon nañ leen ci gën a tàggat tuuti euh, bon euh, je crois que daal loolu la et puis aussi xëy na mais loolu gisatuñ ko je crois que xadar ne way mais Amérique ñun ñooy njëkk ñun ñooy premier ñun ñooy kii loolu xaw na wàññeeku tuuti. Mm-hmm. parce que am na temps euh, we are first in nu sommes les premiers dans l' espace nous sommes les premiers tel tel tel. Mm-hmm. bon loolu am na temps boo xam ne nañ ko doon wax mais quand loolu wàññeeku na tuuti parce que génération yu bees yi je crois que ñu ngi gis ne du Amérique rek moo nekk ci àddina si. Mm-hmm. am na yeneen dëkk te ni ñu buggee ñu jox gëddaam Amérique. ñoom itamit bëgg nañ ñu jox leen seen gëdd parce que Amérique dafa am drapeau am hymne national ñooñu tamit ñu am seen drapeau ak hymne national mhm. voilà lu jëm ci Amérique ba tey xam naa peut-être foofu la ñuy jeexalee euh, bi Donald Trump ñëwee ñu bëri dañu yaakaaroon ne dina am lu mu wàññi tey euh, Trump dafa mel nii moom mooy euh, particularité États-Unis ci ni muy defee ci ni muy waxee ak euh, yu ni mel. est-ce que amoon nañu président xëy na boo xam ne nii la doon defee comme Trump. non cest à que am na am na nag ay kàddu yoo xam ni wax na ko xëy na du kàddu yoo xam ni jekk na mais nag aussi xam nga ñi nga xam ne xam nañ man dama toog fii ba mu ko waxee ba ma ñëwee le lendemain ubbi suma ordinateur. xamuloo nombre message yi ma jox ci ay américain hmm. nañu Ousmane xam nañ Sénégal xam nañ Afrique hmm. suñ président li mu wax vraiment neexuñu te ñu bugg nga fàttaleku ñu ñun meluñu noonu hmm. moo tax biñ ma ci interroger j'ai dit wax naa nit ñi ne leen man de loolu nga xam ne Trump wax na ko ah naqari na américain yi wala bokk américain yi nga xam ne sóoraale nañ ñu te xam nañu bind nañ ma ay email yu dul jeex ne ñu ngi jéggalu donc xëy na aussi euh, personnalité Trump parce que buñ réeree mbir ne li mu wax jooju mu wax ci ñun mais dina ko wax aussi ci Amérique surtout ci ñi nga xam ne bokkuñ ak ñoom euh, affaire politique. Mm-hmm. kujjee politique bi. Ah. lu nekk la dana yëg. fàtte nga lim doon wax euh, Hillary Clinton. Mm-hmm. ne ko yow dafa da nga dëng yow jubuloo yow fenkat nga donc xëy na. koo xam ne kii gémmañam am na ay kàddu yoo xam ne na fi génn rafetul kooku nag c'est rare nga gis ko ci président américain wala bokk président américain nga xam ne xam nañ leen ñun mm-hmm. c'est la première fois ñu gis koo xam ne kii euh, sa discours souvent doonul discours diplomatique parce que discours diplomatique da nga koy wékk ci yar ak teggin mhm. mais il lui arrive de temps en temps génne ay vocabulaire yoo xam ne yi mhm. xëy na président waru ko génne mhm. mais li may wax rek mooy du rek li mu ko wax Afrique mais États-Unis mais même France bi ak Angleterre ak yooyu yépp xaw na leen saaga ñoom i tamit kon ñu jàpp Trump reflété wul Amérique non non reflété wul Amérique foofu moom mun naa ko wax li nga xam ne daal mooy ni muy waxee ak ni mu koy waxee ak ni ko ñagasal diggante moom ak ñeneen ñi kooku reflété wul Amérique Amérique bi Amérique euh, publique maanaa nguuru Amérique administration Amérique mais Amérique privée aussi citoyens yi du ñu defee noonu du ñu defee noonu loolu daal war nañ mun a comprendre ne ku ci nekk nag am nga loo xam ne lii sa mbóot la mais nag euh, am yar ak teggin te jox doomu aadama gëddaam je crois que xëy na mun nañ ko décrire ne américains yi dans l'ensemble noonu lañ mel évidemment mun nga ma ne waaw euh, relation am di euh, en Amérique diggante nit yu weex yeeg nit yu ñuul yi kooku nag ci seen histoire la ci seen passé la mm. euh, donc ñu ngi ñaan diggante nit yu ñuul ñi ak américains yu weex yi mm. seen relation di gën a rafet li ñu li ñu li ñu def en sort que jël Barack Obama mu doon seen président pendant mm. deux mandats na pousser nit yi ñu gën a réfléchir xam ne doomu aadama nga ñuul nga weex nga wert wala nga pinti panta doomu aadama nga nit nga nit nga te soo seetee religion yi feeñ yépp loolu dañ koy fësal gis nga nee nañ sax doomu aadama bi balaa nga balaa ngay jot ci yàlla il faut nga jaar ci doomu aadama donc donc mu doon leçon boo xam ne bi war nañ ko wax pour àddina si yépp lépp luñ ci jàngee Amérique wormaal doomu aadama ak lépp loo xam ni jànge nañ ko Sénégal aussi warmaal doomu aadama bés bu nekk ñu di ko xalaat parce que loolu moo def nit. loolu moo ràññee diggante nit ak muumin te loolu aussi moo ñuy dimbale fa nga xam ne bëgg nañ fa dem ñu mun fa yegg. parce que yaakaaruma ne yàlla jox teraanga koo xam ne kii da ngay jël say tànk teg ko ci doomu aadama. kooku moom yàlla bañ na ko. voilà. jërëjëf professeur Ousmane seen euh, njiital wax ñu ngi lay gërëm waxtaan bi amoon na solo. ñu lay bàyyi la nga tàggoo. waaw jërë ngeen jëf su fekkee ne waxtaan wi am na ci loo xam ne lii xëy na xam-xam bi matul ñu baal ma ko su fekkee ne am na ci wax joo xam ne ji aussi loo xam ne lii rafetul ñu baal ma ko li tax rek ma nangu woon pour que nga ñëw ñu waxtaan mooy. as tuut li ma xam ci diggante États-Unis ak ñun as tuut li ma xam ci Amérique ma bokk kook sénégalais yi parce que wax naa la ko give back ba may dem école primaire ak ba may dem lycée ba université suma bàyyi li mu fay barewul lépp nguuru Sénégal moo ko fay te loolu impôt sénégalais yi la mhm. donc su fekkee ne xam naa as naa ko partagé ak sénégalais yi mhm. su fekkee nag wax ji aussi am na ci koo xam ne ki neexu ko mu baal ma rek bu mu dem ci internet bi di ma saaga <laughs> jërëjëf kenn du la fi saaga seen ñu ngi lay gërëm waxtaan bi rafet na moom mooy njiital euh, WARC di centre afrique euh, ouest africain de recherche euh, ñu dalaloon ko tey ci démb ak tey diggante Sénégal ak Amérique muy diggante bu yàgg ni mu ko waxee ñu amoon mbégte lool dalal la gërëm auditeurs yi gërëm itam jaaw jàlloo mi nekkoon ci machine bi Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi dig dajee beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm